an bi Cheikh Tijaani amina bil qudumi li kawni eh, xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne époque bi gën ci époque yi mooy bi ma nekk mooy bi mu nekk moom bi mu fekkee mu ne après bi si topp génération bi si topp moo ciy topp génération bi topp moo ciy topp kon ku la mujj jamono moo lay gën a néew mbaax xayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum xam nga ni génération maam Sëñ Touba maam El Hadj Malick maam ñas ñoo ñu bokkoon benn génération est-ce que ñooñu amaat nañu amaatuñu génération ñoom sëñ Abdou Lahad Mbacké sëñ Saliou sëñ Babacar Sy et est-ce que amaat nañu génération ñoom sëñ Cheikh Tidiane sëñ Gaynde Fatma est-ce que ñooñu amaat nañu. non noonu lay demee da ngay dem ba boo gàggatee pour ku la ko gàgganti doo ko gis boo amee dépense dootoo ko gis parce que général àdduna bi dafa jëm ci basculer vers la néant te yàlla tànk ku baax ki fi nekk du ko jële fii il faut muy génnee gaa yu baax yi ba mu des mbalit mi mu yow taxañ ko yóbbu ko moo tax yenn saa yi ngay gis mu jël par 10 par 20 par 30 nga gis lakk yi bëri parce que mbon gi mooy bëri yàlla di wanee boppam te gaa yi duñu lii yées yées bi foofu la dellu tànk ñu ngi gën di sore yonent bi dañuy gën di yées parce que dañu liggéey ci nombre dañu liggéey ci nombre mais liggéey yu ñu ci valeur c'est un peu philosophie ce que j'explique là liggéey ci nombre te ji da ngay gis koo xamante ne kii nee nañ tisbaar ñeenti rakka la moom il compte quatre rakka pour julli ko terminer donc dafa liggéey ci nombre mais liggéeyul ci valeur su liggéeyul ci valeur dina ni fatiha bi li mooy signification xulons bi rabbil falaq bi li mooy signification subhaana rabbiyal azim bi li mooy signification subhaana rabbiyal ala bi li bu paree day nekk malaaka mais quatre yi moo ko ci doy mu def quatre pare na ci donc àdduna bi yëpp ci nopp dañu ko liggéey sëriñ si maa la ëppalee taalibe xam nga nangam laa am ci nombre taalibe ci nombre la ñu liggéey mais liggéeyuñ ci valeur suñu liggéeyuñ ci valeur du demee nii mu dem moo tax yonent bi ne ne ñiy baax poignée la ñuy doon mais ki am fayda mooy kiy bokk ci poignée bi doon ci pouce wala l'index wala leneen ak leneen. si nekk ak film yenn a séduire public bi yi waaraate wala yi bari wàññewul dara li am solo. mooy ñu yëkkati niveau bi parce que dañu wax ne nit ki balaa muy wax war na xam yii war na xam li muy wax lan la war na xam ki muy waxal kan la war na xam fi muy waxee fan la war na xam ndax lii jamono laaj na ko walla jamono laaju ko war na xam bi ci mujj mooy est moom moo ko war a wax walla waru ko wax mooy niveau bi kon conseil boobu mooy ustaas yi lu ñu bari bari nañu yéegee niveau bi xam ku nekk xam li nga war a wax ak fi nga ko war a waxee ak ki nga war a waxal ak ni nga ko war a waxee loolu rek moo ci am solo mais day gën di bari xam nga bu njëkk benn rajo moo amoon Sénégal mujj gi ñu am benn télé benn rajo léegi ñaata rajo kenn xam ko dem rek maa ngi dugg ci internet bi di xool ñu ne ma dakaar am na 100 rajo 100 dakaar 100 alors bu fekkee dakaar am na 100 rajo site internet yi ñëw. kon xam nga kon yokku na parce que lu kenn doon def léegi junni ñu ngi koy def ni oustaz yi bare noonu la journaliste yi bare noonu la technicien yi bare noonu la leneen leneen leneen man parfois sax je me deviens un technicien parce que damay romb benn affaire ma filmer ko ak sama téléphone. en ce moment là technicien la mais est-ce que dinaa ko def ak ki nga xamante ni kii mooy professionnel bi foofu la affaire bi nekk moo tax euh, oustaz yi mën nañu bëri moo tax sànq ma joxe recommandation ma ni ngeen éviter polémique. xam-xam géej la géej la xam-xam géej la kenn du wax ci xam-xam nangam amul kenn du ko wax ci xam-xam mais da nga naan egguma fa rek léegi mën naa wax loo fekkewul wala loo gisul mais bés dana ñëw nga teg ci sa bët kon nag ustaas yi bu ñu baree dañu xool li ñuy wax rek bëgg bës njaga mbay nee na yaay wax bu mu la tax a wax loo warta wax kon nag mu ngi noonu an bi Cheikh Tijaani amina bil qudumi li kawni fi sifa